السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فهو وهاب يا رساق يا ملكي لك توهب لي كني أنا ريقي أزيل عاجلا بالبشر مع مرض حتى قمني لها سر استرجعني توعى وحمني وقني على وراء المطلب اسم أسكانا السماء والأراضي والهواء بلا مشارج يوم مشكونا أجيب وسلم بسم الله محمد وتوليفة معكم دارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سامحا المسلمين والحمد لله اللهم محمد آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل واحد من ديجي عدنا وعدنا اللهم تخدم التربية الروحية المدرسة الخدمية شعر نبرك شعر الكورجيت تقول لي تدي تقول لي تدي waxtu yu tëdd yi noy yu tëdd yi yàlla na ko yàlla def lépp mm, dugal ñu ko ca ñaanu sëñ bi waccax taxaruki mama sukuni. misla ibadati su tamkini nga defal yàlla ñu dugal ca wari jaxantal fitra fawqa sawmi eh, am ci dugal sunu koor yi yàlla gën a kawe sunu koor sunu koor gën a kawe sunu sunu koor yi sunu koor yi gën a kawe sunu koor kon Moodu mm, ñu bëgg a waxtaane xam ne ne mel na ne yëngal na jamono fan yii te muy jàmm rek muy photo yooyu nga xam ne nataal yooyu nga xam ne dañoo wax ne nataal yi ku baax nañ ci ay waxtaan ci ab mbooloo sàngam yo ëpp ca mbooloo ma daanaka rek mbooloo mbooloo ma yaakaar naa ñu ëpp ëpp ëpp jëpp ci ñoom jàpp nañ jàpp nañ te lii wala nataal ba muy nataal ku baax ki muy boobu mu taxawee mel ne dafa ñaari loxo yi dafa ji dafa xaw mel ne ku koy xaw a boot te te wóotuwut ndax boot boot boot ñaari loxo am na am na muy kii ñaari loxo yi ko kon day àgg waaw ki boot yi loxoom am na nu nu nu mel waaye daal loxo yi jëm na jëm na noonu ba ca ba ca topp muy taay taay ju tëdd jooje ba ca topp ba ca topp topp. mooy mooy foofu mooy joxe mooy mooy tege tege xeer wa waaw am na ci am na am na ci bu bu bu taxawaatee yaakaar naa yaakaar naa yaakaar ñetti yooyu xanaa ñetti yooyu la yaakaar naa bu daal nga xam ba mu julli taxaw ba mu taaya ba mu taxawee noone ko ñent la ak ak ba mu def xerwa maanaam bi ma ko jëkkee gis xool ko la ci dal mbooloo mu bari moo ma ci dal ba ne ko jàkk sëñ bi képp la ma xam ne ku ñu wax Abu Kebe da da ko daa tënk uh, yëg-yëg mu ne am na ko ba am ko ca ñeneen ñu bari am ko ca mooy ne dañuy xëy bu la ak unsul la la xarkanam boo boole bu ne ko jàkk da nga koy tëy ragal ko tëy tëy ragal bu ko tëy loolu nga gis ne borom jàkk sëñ Saaliw nga xam ragal mooy am ponkal moo ragal fee waaye tey nag mooy da nga koo jox war moom ba faru mel ne boo mel ne ak ragal la loolu tey tey wa uns boole ci ak ak ak nag wutilikoo ko neex ci yow lool xam ne ñaari mil ba ba ne ko jàkk loolu laa ci ci yëg ci wutiliku ne day mel ne moom euh, dama tëll baax noonu la ci ci ci moom waxtaan ya nag fu ñu ko doon waxtaanee am ñu bari indi nañ ci ay ay ay hypothèse yuñ teg ne kat mën naa am du moom benn ba dama wax ko par benn yama si fàttaliku am nañu wax ne ne kat kaala gi suñ bi waxoon ne kaala ga day wax te kaala gi weexut mu ne ne waaw kaala gii de moom maam Bata Samb Diop suma maam joojee anam fi mujj ci waa Basaq yi wanoon na ma ko ñaari gaal la yu mu dubli génn ci génn ci kaala ak jëlle bi boobu sol jëlle ne day mel ne dafa dafa xaw a dafa xaw a sokola xaw a mboq jëm ci sokola mboq mboq bu gel bu foncé jëlle bi ba wikko naa ko ni naa ko lu ko soxla ma ko bëggoon sol ne teggin yéen ndax di ko moom sàmb fonke ba ne ma ba ne ma day lii de mu musuma ko wan kombu sax ndey loolu ma wax kon kon kon kon te ma waaw koo jox may war ma yoo xam ne du ma ko ca kiyal moo tax ko gàccoo kaala ga noonu gàccoo naa ko kaala ko gàccoo ko kaala kaala ga yi noonu la mel noonu ci bi su su su su kala bu ubbi ko waaw bu leer loola noonu kala rek noonu mel rek noonu ko dessiné xam ne day am ay ay dessin lu mel ne ay ay ay karo waaw waaw jëkk jëkk jëkk kala kala woon naa ko kon kon moom kaala ga wér na suñ bi daan kaala kaala gu mel noonu jëllabi bu wér na suñ bi daan jël daan jëllabi wu jëllabi bu mel noonu noonu yoo xam ne jëmm ji dafa mel ne daa mel ne ku tegeroon dara misaal waaw sëñ bi dalaa tegale moom jox nañ ko dalaa tegale ay ngóobu ay ngóobu yu bari daa ko tegale daana sax kaala la dënn bi dënn bi dënn bi dafa daa kaala waaw sëñ bi noonu la noonu xam ne moom doxinu nit ñi ñi xamoon dafa daa kaala sax dënn bi te ko fii it ba mu dëgër kon Marrakech yi wér na ne wér na ne suñu naa ko. suñu déclenche ma gis waaye nag oh, waaye nag li mu ëppoon ko baaxoo woon li moom moo doon ceraxam yooyu gis naa cerax ya karabade gis naa karabade karabade yi lépp der lay doon gis naa ko ne ci fotom boobu yeggoon aussi boobu karabade am na waaw gis naa ko xam doon waaw waaw waaw kon moom kon kon kon moom bu dee ci kaala gaag jëlle bi baag mu kii lépp moom wér na ci nga ne sëñ bi eh, daana ko baaxoo sol mbaxana ma ci biir kaala gi noonu mbaxana ma moom daana ko daana ko daana ko baaxoo daana sol daana baaxoo sol mbaxana moom waaw daana baaxoo sol mbaxana ci ay ay mbaxana yu wuute ci li ci rek sax si Musaa Ka moom koy tudd ci wàllu waaw waaw dégg naa koy waxit koy waxit si larum sëñ abibu ci ci ab band mu wax ne suñu abibu ne ne suñu mos na ko woo nee na boo suñu abibu tu tànk la fekk ko musul noone sol sol ab koppati moo ko sol koppati waaw waaw la ca topp ñu ñu ko ca mooy ne foofu muy jullee euh, seng boobu nekk seng kër kër sëñ bi moo mel ne ne nga xam kër ga daa réew loolu ko xam kër ga nu euh, ak jumaa ji euh, kër gi gi dañ ko ci wàññi lañ wax sax ndax bu noonu wax wax nañ loolu léegi gën léegi kon am ñu ñu wax ne dafa mel ne e, seng boobu maanaam maanaam sengu kër gi dafa dalee na dalee na càmmuñu déedéet kii ba gudd kii kii foto rectangle bi bi mu taxaw rek waaye boo xoolee ci julli googu kala mujj ci ci ci sa càmmuñ kooka kooka boo ko xoolee da nga xoolaale poto yu gudd yooyee ji kër ga ca bokk kon loolu kon moom waaw waaw waaw waaw julli googu gu yët fi wax ne julli gi julli naafil la ñaar ak suñ waa julli ci mën a bokke boo xoolee photo bi ki ci sëñ bi nga xam ne ne ca gànnaaru sëñ bi gànna gànnaaram taxaw noonu ci wetam nga ca toppaat taxawaat ci wetam sàpp si soog di nga ne kon kon du julli gu ñu préparé na nii la du julli farata du sëñ baay taxawal uh, dongo yee di barkeelu waaw ko naan xamuñu woon kat ci wala yooyu wala ci fiq na maanaam léegi julli fi léegi googu am ko ci tolol loolu moom loolu moom loolu moom bu ko fekk waxati waaye aramut moom waaw barkeelu ci julli googu aramut kon nag ñooñu dañ ci loolu kon moom dara dara ñëw ci waaw dara ñëw ci kon waaw eh, maanaa maanaa it ci yeneen éléments yi ay wax nañ ko ci dëgg yàlla mooy julli gu mel noonu mooy mooy cérémonie bu bu toll noonu bu jamono jooja ci bawal ndax ndax am na fi sànc bu toll noonu tubaab yi ñëw fa cérémonie boobu di xew ndax am na ci boor boobu feneen pour pour njëriñ ñoo ñu ko wër suñ tubaa su soluñu mbaxana ñooñu te yor yor la gis nga ko loolu kan ci ñoom maanaam kan moo am kiif kiif ci nit ñi ñu war maa la war kon kon mel mel ne kon amu ci borom kàlla gu ñuul ko wala yooyu ci ginnaaw ku mel ne yële meneel faal do do doon ku am ak jaxasut sëñ bi sëñ bi sëñ bi dal na ci kër ga moom jàppee jàppee moom yële faal da ko sotti ci kër ga doom yële meneel faal dégg naa ci làmmiñ mu wax de lu dul mu yàlla kooku fi muy muy yàlla yaa ngi ci kaaraange ndax sëñ bi am jàppam ci sotti ci gi kooku mën naa nekk Yérémy Fall te Yérémy Fall moom moom du am murit moom boobu prince la booba mën naa karaw loola ku ku ku ci kooka ñu ñu ñu ñu dox dox leen murit nga waaw waaw kon kon moom loolu loolu kon moom mënut di mënut a mënut a yàq dara ca kii ba bu ñuy teg xeer mel na ne am na lu ñuy eh, ca natal bi mel am luy niru ku solo borop wala yaa xirtu mel jigen am nañu am nañ ñu ko jàppe ne man nam ndax du waye man nam bu doon jigen ndax du ndax du soxna toob may la lolu lolu bu rew ci dara na ginaaw dox ci asif toob bi ak soxnaam ak ak dawkat ba fekk nañ suñu waju ga kon legi fekkee le kon ñoom ginaaw bu dee man da tew man naan ak soxnaam ndax dañuy bay xel ne ne ne suñu mu ci kër gogo wane ne semence commandant jàng màgg si kër moo ko moo tax mu ne commandant kat dañ koo xatal na sëñ bi sori foofu moo ko tax mu sori léegi nag kooku kon kooku kon ko am ndigal la la kon ci borom kër ba kon kon kooku war fekk cérémonie bu toll noonu kon daal kon daal day mel ne kon élément yëpp mi euh, ngi daje ci ne kon photo boobu kon. for sëñ bi la ndax it ndax it nga xam ne bokkoon na ci ñoom ñoo doon tabax euh, bu mag kooku kooku kooku kooku am na am na ci slaayul bu ne bu ñu fekkee ci ab ëll ne fekke woon na ko loolu yanoon na maanaam euh, waaw euh, am na am na ñu jéem a analyser naan ñooñu mel na ci wet sëñ mel na day rek kooku mën naa mu mu suñ diw sàngam muy làppatoo sëñ bi ak tubaab ba eh, dégg tubaab ba la muy wax nag mu bégte lool ndax booba bisu bisu bégte la ñooñu nekk nekk ci ginnaaw di di di xam te ku mel ne jël suuf ba nga xam ne xub booba ginnaaw gas nañ koy at ab bu yàgg kon kon suuf su kon dana bëri lool loola kon kooku kon ñi ca taxaw danañ timmee te ku ne xam na ne booba. ni jamono mel nii rek la la mel nag da nga bëgg a xam yoo xam ne gisoon naa nangam suñu bëgg teg xel gis naa ko gis naa boobu muy ñaan gis naa nangam yooyu yooyu xam nga eh, kenn ku nekk ni ni nit bëgg kumpa nga xam ne nga xam ne ne bu suñoon dara du kump loolu kon da koy gis loolu moom moom du ci dara jege googee googee ñu ko jege am nañ am nañ wax ginnaaw sëñ bi sëñ bi daal jóg wax na ko ne sëñ bi parce que ñoo jóg ci jóg ci sax baraam sax ba mel ne dafa xaw a eh, kii xaw a métti noonu bu ñu wutal ko bari ba ko ko ko sëñ bi kon nit ñi dañ koo bëggoon a bëgg a bëgg bari ko ñuuxu waaw waaw loolu kon moom yaakaar naa ko kon daal day mel ne kon eh, photo boobu kon eh, kon wér na. am nañu waxe nak nak naan bu diko naan tubaab bi neen tubaab sangam nee na kat ben photo lañu am ci tubaab loolu mu tubaab boo ko ko wax tubaab bu momut nit ñi architecte bobé fekk cérémonie bu tol non yorub appareil war ko téye denc ko mu archive nit tubaab xam ne archive ku ne xam ne ne loolu moom ëpp na gën a mën yeneen photo sax war naa mën a yu bari waaw vidéo yu sax sax sax lu moom it waxoon na ne ben bambara bo xam ne ci ci am. ci mm, bato sàngam ci France uh, ci la boo doon liggéey nee na ko mos nañoo wan tegal ñu tegal ñu xam ne uh, ab marab bu ci julli ci ci ca ndox ma uh, kaalawu ni woon kon xam ne noonu suñ bi mel waaw loolu loolu loolu mën naa nekk waaw mën naa nekk kon kon moom kon moom jëf kon waaw loolu daal moom laa ca càmbar daj ko gis ko loolu laa ci te xam ma andi ko yoon yëg-yëg boobu moom boo ma jëkk yëg-yëg moom ña ña ña ña am yëg-yëg lay njariñ njëriñ bu dee loolu loolu argument yooyu nag mooy kii jëfandikoo mu xel ñaar yëpp booy la ko indi asalaamaaleykum taala aleykum aleykum salaam taala aleykum wa rahmatulah wa barakatuh